jëf tey ñu ngi toog le grand champion Papa Sow ku ko xam xam ko diggante bi Moussa Dioum mu nekk champion ñu parce que ñu ngi ñaar bi bokk génération def na lu bari ñu lay jàll li bokk ñu lay nuyu waaw ñu ngi dafay dafay nuyu Sénégal yëpp di jaale Moussa Dioum di koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale monde lamb di ko jaale waa parti particulièrement ak famem ñu ngi koy jaale Moussa xam na ni deewee na ndaw waaye wax yàlla ginnaawam dara ñaaw ci Moussa moom waaye ñëpp la woon man Moussa bi ma koy xam ba maa ngi def CM2 boobu Moussa jàng ba wàcc dem fekk ñoom Mathieu Pereira ñoom Moussa ñoom Lato ñoom Baboy Géej foofu loolu yàgg na boobu mu ñu amee ay 13 ans ci lay yem quoi kon sama xam moom ah musaa Dioum yàgg na lool lool wax dëgg yàlla ngeen bokk génération def loolu bari ci lamb kan moo nekkoon Moussa Dioum waaw Moussa Dioum benn phénomène la woon quoi nit ku baax la nag nit ku saf xorom foofu fu mu toog kenn du kenn kenn nit quoi nitu jàmm la daal boo bëggee dégg dëgg quoi Moussa moom nit ku jàmm nit ku baax la wax dëgg yàlla ah ñu koy ñaan fu mu jëm daal yàlla na ko gënal fu mu jógee waaw. la wooyee wax na ne waaw mbéyteel laa man Papa Gueye moom ma eh Moussa Dioum man dafa am combat sax quoi moom ñi ngi saal quoi mu ne ko lu xew mu ne ma Moussa Dioum mu ne quoi ah, loolu la mu ne la ñuy tàgge quoi. loolu dafa yàq suñu entraînement yëpp dem wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ndax kenn foogul woon ni yëguñu man yëgu moon feebaram yëgu moon dara quoi dama jékki-jékki rek mu dal suñu kaw mais ñu ngi koy ñaanal daal fu mu jëm daal yàlla ko dal fu lan moo la gën a war a ngeen waaw Moussa de moom nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku ku xewlee ku mu yëg ne xewle nga sax dana ñëw sa xew waaw mu ne ko lu xew mu ne ma Moussa Dioum mu ne quoi loolu la mu la ñuy tàgge quoi bon loolu dafa yàq suñu entraînement yëpp dem wax dëgg yàlla wax dëgg ndax kenn foogul woon ni yëguñu man yëgu moon feebaram yëgu moon dara quoi dama jékki-jékki rek mu dal suñu kaw mais ñu ngi koy ñaanal daal fu mu jëm daal yàlla ko a war ko loolu ko fàtte lu ngeen dund yéen ñaar waaw Moussa de moom nit ku baax la wax dëgg yàlla nit ku ku xewlee ku mu yëg ni xewle nga sax dana ñëw sa xew lu mënti xew muy jàmm muy safaan ba nit ku baax la daal moom nit ku baax la daal mënti wees nit ku baax wax dëgg yàlla ñu koy ñaan yàlla ko yàlla defal cat cat ba ko jiit si bàmmeelam ñu koy ñaan yan kàddu ngay dénk ñi nga xamante ne ñoo di njaboot gi ak famille yi nga xamante ne tey ñoom ñoo des fii waaw ñun de ay jullit lañ Moussa moom famille famille Moussa Dioum suñu famille la yaay Moussa Dioum suñu yaay la ay grand frère ñoom grand daam ñëpp suñu ay grand lañu wax yàlla benn famille la uh-huh. dañuy dañuy ñaan rek yàlla may ñu xolu muñ te may ñu leneen lu leneen lu gën lii incha allah la ñuy ñaan quoi. taxawaay bi aussi bi lamb am ñu gis ko la euh, taxawaay boobu naka nga ko gisee ci lamb papa. waaw lamb daf boole waaye war ñoo tàkkale. Uh-huh. waaw lamb daf ñuy boole war koy wan. Uh-huh. képp ku xawle ci lamb rek moo xam. moo xam safaan ba la moo xam bànneex la li uh-huh. nga gis monde lamb sooy wax dëgg yàlla lamb daal monde lamb daal mi ngi noonu quoi wax dëgg yàlla waaw beneen monde la quoi waaw feebar bi yëpp déggante ngeen wala gisante ngeen ci. non yëguma feebaram yëguma ni Moussa Dioum wallaay yëguma feebaram ba li ma ñu am démb rek mooy eh Moussa Dioum ma ko mën combat ñu ne ma. waaw waaw fan la ci am quoi man loolu laa ci am waaw. am na solo. ñu ngi leen jaajëfal